ñu bëri ñu ngi wax ñu ngi naan ay problème ay deal ay marché ay conflit ak ay affaire ba ñi nee na leen sax dafa basé wu ci système bi nga xam ne ñu xalaat ni dafa am entente direct ak ki nga xam ne mooy Mamour Diallo la nit ñi wax mais li nga xam ne mooy li nga xam ne bokk na ci li indi problème yi mooy le troisième point kii nga xam ne mooy DAF mooy le directeur administratif et financier bu ONAS moom

bi nga xam ne mooy affaire curage ak réfectionnement li nga xam ne mooy système d'assainissement de Dakar mu jël si automatiquement ñaari entreprise du ma tudd tuuru entreprise yi mais buñ ci yeggee bu fekkee ne euh, coow li dàkkut dinañu gën a joxe ay indication ak information si entreprise yooyu li mu def mooy ñaari entreprise yooyu benn bi dëgg la am na expérience mas na liggéey ci loolu ñu ko sant mais deuxième entreprise bi nga xam directeur ba jël na ko jox ko mission entreprise boobu amul benn expertise en la matière tax na marché bi daf ko lancé ci lu wax euh, euh, consultation directe entente directe consultation restreinte genre nga tànn si ci ñu la neex nga jël leen jox leen marché bi nous bi commencé seen opération de curage ak seen opération de euh, l'assainissement ci li nga assainissement ci Dakar depuis plus de deux mois car bi service service technique yi xoolee nee nañu travaux yi nga xam def de réalisation des travaux donc un retard extraordinaire mu war a mën conséquences yu grave yii yëpp ñeenti yi surtout ñoo nekk les points fondamentaux yi nga xam ne service de renseignement yi xamale nañ ko bind nañ ko càmbar nañ ko te ñu yëgalee ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi moom nag fexe nañu pendant un bon moment waxtaan ak moom pour corriger loolu wax naa leen l'un des actes les plus graves mooy auto 80 millions bi nga xam ne benn société buy soumissionné moo ko jënd jox ko ñu ne ko dellool oto ba parce que du yoon mu jël auto ba certainement ñi ma pratique PDS la mo ñom mais jamono voilà les quatre points yi nga xam ne problème bi ba li ki président Bassirou son premier ministre Ousmane Sonko ñu tranché direct mooy ko remplacer pour que ça serve de leçon mais est Nekul, dans une optique de vilipender indi coow wala parce que l'État tax ñuy mën def précision parce que sénégalais yi bëgg nañ xam lan mo xew parce que les la sénégalais yi bëgg nañ xam parce que comment nañ leen expliquer ni Cheikh Dieng s'en est pris li des lobbies qu'est-ce que les lobbies c'est vrai am nit ñoo xamné depuis longtemps ñu ngi fii ñu ngi liggéey ci walum assainissement ak ci yu demee mais Cheikh Dieng attaqué wu ci ñooñu donc lolu il faut que sénégalais ñu mëna comprendre lolu li indi problème wu Cheikh Dieng ba nu jëlé ka fa ñent la ben moy auto bi nga xamné ben service ben entreprise bo xamné da fay jël ay marché parce que pratique la pratique bo xamné il faut ñu dénoncer ko bari na maa ma ngi dégg wax jooju en 2012 bi Macky Sall jëlee pouvoir bi les nouveaux directeurs dafa am nit ñoo xam ne dañ leen di wax ay bukki lañu bukki dañuy ñëw sa bureau bés bi nga fanoo tak ñu ñëw seet si la ñu ne la ah yenu nga ñun xam nañu le poids social bi nga xam moy and ak DG yi donc li ñu def moy dañ leen bëgg jappalé par exemple da ngeen di jël benn société par exemple bo xamne euh par exemple ah dama koy wax nonu mu melni ñi jaay auto wala ñu jaay imprimante wala ñu jaay lenn ñu indi la benn sac bo xamne ay millions yu bare la parce que c'est des pratiques yo xamné ça très sous Abdoulaye Wade sous Macky Sall waxtaan naa ak ay kilifa yo xamné def nañ len ko ñu indi la ben 30 millions wala ben 40 millions wala ben 50 millions ñu ne la ñun ñoo la ko nuyé ñun ñoo la ko jox pour nga jafandu ci parce que xam nañ ni ñëpp dañ la laal ndax fal nañ la mais xaalis bobu sen enveloppe bobu sen sac Bobu, boo ko jëlee poison la parce que ñooñu bépp marché bo amati ñom ngay wo nga jox len c'est ce qui se passe souvent certainement la même chose mo Wara xew ci li nga xam moy auto bi nga xam ñu ñu ko ko jox ñu ne ko delloo ko nangu ko delo mu jaayaat auto bi ñu immatriculer ko nañ leen jox euh, numéro auto bi et tout ça mais foog nañ ni dund ci yegg inshallah deuxième chose bi ma leen wax moy affaireu brigade ba brigade de recherche euh, brigade de, du moins je suis toujours dans les recherches brigade d'intervention rapide ñu recruter personnel alors que le conseil d'administration n'a pas été saisi et n'a pas validé ce fait

fa la fekk daf bi ONAS mais nous avons nga que sa lien de parenté bu mel contrôler finance ak administratif da nga informer la hiérarchie il ne l'a pas fait donc li euh, mo indi li nga euh, euh, finalement gouvernement bi président de la république ak premier ministre ñu décidé ñu waccé ko mbokk yi li moy li ma waroon ak yow ak euh, yéen du moins mo wonoon leen ko jox en exclusivité euh, fii la ci Kéwoulo ma di leen ñaanal jàmm di ko ci kenn ku ne si yéen dinañu dellu soit encore ci yenen yenen élément yenen affaire sa yu askan yu jaxlé inshallah dinañ ñoo taxaw wax leen li nga xamné xam nañ ko ci dossier mais ñu xamal leen ni encore c'est le président de la République Bassirou Diomaye jaxar fay moom mooy nommé au poste civil et militaire fal ko ko neex bés bu gisee koo xam ne da ngay yàq li nga xam ne moom moom lay